Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Taysiroul Wousoul bu Al Hadji Cham ñu gën ko xam ci Mustapha Gaydé Al 2 al allama abonné len ngeen mbolé mi xibaar xam sa diine rek moko tax juk ak xew xew jamono kon mbokk ñu ngi lay ñaan nga abonné te nga bëss cloche bi yok ñu tuuti sens an nga bëss fi ñu bind jëm bu fekkee gande ci chaîne bi nak bëssal fi ñu bind s'abonner après nga activer cloche bi ni meun nga tamit wax sa xalat fi ni ci commentaire yi li nak do ci fay dara te dina tax vidéo buñ do bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من سنت يالا سنو بروم غنى بوم نيو التوفيق دفل نيو أكتل بنيو ديل تيوات في سجوتا ييغا خمدني مودي جوتا يو الرحيق المختوم mudda ay jotaay yi nga xam ne dañ cee baaxoo di jàngat dund ak jaar jaaru si yi ci jotaay buñ jugee muy jotaay juróom-ñetteel bi ñu àndagoon ci borom téere bi fu muy nettalee gannaaw ba nga xam ne yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa am na fanweeri at ak juróom si dundam mu amoon benn xew-xew bu nga xam ne na xew màkka muy xew bu nga xam ne ni mooy tabaxaat bu nga xam ne waa màkka tabaxaat nañu ko kaaba gi yalla def ne yent yalla muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, fekke ko ba pare bok ci ñu nga xamne ni ño doon toxal moli pour ñu tabaxat kaaba gi comme nu nga xamé ni mom la yalla def mu atte wa Màkka ganna ba nga xamé ni nii nañ ba nar a seeni jasi ci kan mo wara a xéet bi nga xamné ni moy al hajarul aswad kan moko ko dello a am yalla def ñu dëppoo ci ne ku ñëk rek nañu ate yàlla def ni moom moo njëkkoon a ñëw bindab tey bi nag ñoo ngi koy def ci assiira al ijmaliya qabla nubuwa te moo di résumé lu nga xam ne nii mooy ak ndawam avant muy nekk ak yonent parce que borom téere bi bunt bii nii da ci doon jàngale an nasabu wal mawlidu wan nasha qabla nubuwa moy len askanu yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam romboon nañ ko ak waye moy kañ la le fan la juddo kada kom ni nga xam ne nañ ko waye nak ak jaar-jaaram ci ndaw afa muy nek ab yonent su ko defé nak fi day teunk buntu bu nga xam ni mom la fas bëgg dugg ci benen buntu bu nga xam ni moy mooy ba nga xamé nek na ab yonent lolou lay wax ni as siira al ijmaliyya qabla an-nubuwah te mooy lan résumé ay jaar-jaaram ay jikkoom afa muy nekk ab yonent fii nag borom téere bi dafa gën a taxaw si wàll jikko yu rafet yi nga xam ne ni yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy nekk ab yonent loolu lay wax ne kaana annabi sallallahu alayhi wa sallam yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na qad jamaa fi nashatihi nekkoon na di boole si ndawam nasha mooy ak ndawam ba mu nekkee ndaw afa muy nekk ab yonent xayra ma fi tabaqaati naasi lu gën yiw lu gën a baax si loo xam ne nii day nekk si état bu nit ñi état bu nit ñi mooy jamono ji ñuy nekk ndaw jógee si étape bi dem si beneen étape min misaatin si ay ràññee yoo xam ne day tax nit ki ñu ràññee ko maanaam lépp loo xam ne lu rafet loo xam ne day tax nit ki amal ko ak ràññee moom làmboo woon na ko si ay jaar-jaar yu rafet wa kaana tirazan rafian min al fikri assaib nee na nekkoon na ku nga xam ne nii tiras buñ ko waxee mooy an namat wal misaal maanaam nekkoon na exemplaire bu nga xam ne nii bu kawe la si wàll xalaat bu jub moom yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wa nazari assadid ak gis-gis bu nga xam ne nii bu jub la assadid maanaam asayib aydan maanaam amoon na ay xalaat yu rafet yu jub waa naala xadan waafiran min xusnil fitna comme nu nga xamee ne nii amoon na cër bu mat sëkk si wàll xel mu rafet xel mu sell la wa asolatil fikrati ak xalaat yu rafet te jub wa sadaadil wasilati wal hadafi ak jubub jubluwaay doone na si joxe exemple rek mooy bind bi nga xam ne nii moom lañ jógee te mooy àtte bi nga xam ne moom la atte woon waa Màkka gannaaw ba nga xamee ne werante nañ ne kan moo war a delloo alxaajarul aswad ci palaasam ba ñu dëppoo ne ku njëkk a ñëw rek nañ dëppoo si moom mu àtte ñu ba mu ñëwee rek ñu yuuxu ne hada al amin radinaahu hada muhammad ñu ne kii mooy ku wóor ki kii mooy muhammad ñu de d'accord nañ si moom mu àtte ñu ba ñëwee bañ ko xibaaree lu nga xam ne moo dox seen diggante mu laajte benn mbalaan bañ ko indilee mbalaan mi mu lal ko jël xeeb bi si ñaari loxoom yu tedd yi teg ko si kaw mbalaan mi woo giir gu nekk seen njiit nee na nga jàpp si catu mbalaan mi ñoom it ñu jàpp mën leen yëkkati leen ñu yëkkati yóbbu ba nga xam ne fa lañ war a teg xeer bi mën leen teg leen ba yi teg si suuf moom mu jël xeer bi si ay loxoom yu tedd yi delloo ko fu nga xam ne mooy place ba su ko defee ñoom ñëpp nag ñu d'accord si àtte bi nga xam ne moom la àtte kon loolu nag day wan ne xel mu jub amoon na ko te jamono ji yëpp mu nekk ab yonant wa kaana yastaciinu bi samtihi attawil ala tuuli taamuli neena nekkon na di dimbali koosi nopp gu nga xamni nopp da ko don nopp muy nopp gu gudd nopp gu yagg pour lan di setantal lu nga xamni moy xew si adne bi manam di xalat xalat di jup nekutun ku beuri wax da don nopp nopp lu beuri pour xalat wa idmanil fikrati comme nga xamni da don xotal ay ay xalatam ci lu nga xamni ni moy anamuk dundu gi wa taala bi aqli alxasb wa fitratihi assaabi mu ne wa taala yiir na wala boo xool na gis na bi aqlihi alxasb si xelam mu sell mi xelam mu naat mi wa fitratihi assaafiya ak bindam bu nga xam ne moom lañ ko bind mooy bind bu sell bi te dara ko si lu nga xam ne nii moom la waa Màkka doon def si wàllu jaamu xëram ak yooyu saxaaif alxayaati maanaam yër na anam ak dund ji wa shu'uuna naasi wa axwaal al jamaati ak mbir nit ñi ak nu nga xam ne moom la nit ñi doon dundee ba mu ko yéree ba pare nag fa aafa maa siwaha min xurafaatin mu sib mu bàyyi wala boog mu weddi lépp lu nga xam ne nii waa Màkka dañ ko doon def si loo xam ne nii ay xuraafaat la xuraafaat mooy gëm-gëm yu nga xam ne nii nit ki da koy faral di gëm moo xam comme di gaaf lu yenn mbir yi comme lu nga xamee ni jaamu yenn xërëm yëg saar yooyu ba mu gisee waa màkk yenn yi nga xam ne ñoom dañ ko doon def mu bàyyi lépp lu nga xam ne lu ñaaw loo xam ne waa màkk dañ ko doon def wana a anha mu sori ko summa achara naasa mu dund nit ñi ala basiratin min amrihi wa amrihim mu dund nit ñi nag waaye nag si gis-gis boo xam ne nii bu jubla si ay mbiram ak mbir nit ñi maanaam topput nit ñi rek si loo xam ne nii lu ñu def mu def ko déedéet da leen topp nag si loo xam ne lii bu ñuy def lu rafet dafay ànd ak ñoom comme nu nga xam ne ñoom ñoom ñoom la àndagee ñoom si tabaxaat kaaba gi waaye nag bu ñuy def yoo xam ne nii moom xelam nanguwu ko bindam bu ko yàlla bind nanguwu ko da da leen di bàyyi seeni jëf yooyu noonu borom téye dina si dina si indi misaal mi ne fa maa wajada xusnan charaka fihi lu gis waa Màkka di ko def muy jamaa bi di ko def si loo xam ne lu rafet la rek charaka fiihi da say bokk bokk na si rek mooy tabaxaat bu nga xam ne moom lañ tabaxaat kaaba gi jàng nañ ne bokk na si comme lu nga xamee ni nii waa Màkka xeex nañ ko génn giir si xar bu xeex bu nga xam ne nii mooy xar bu fijaar moom it bokkoon na si di jàppale ay bàyyi taxam kon nekkutoon ku nga xam ne dafa isolé wu si peuple bi mais déedéet dafa nekkoon ku nga xam ne nii dafa bokk nit ñi dund ku nga xam ne moom la ñu dund si anam wu rafet nag wa illa bu fekkee nag nit ñi lu ñuy def nekkul lu baax nekkul lu rafet aada ila uzlatihi al atida day dellu si beru gu nga xam ne nii moom la daa beroo mooy beru gu yàgg gu nga xam ne moom la yàgg taqoon fa kaana laa yashrabul xamra nekkutoon di naan sàngara si jamono ndawam nekkutu koo xam ne nii da doon foyee naan sàngara wala yakulu mimma dubiha ala nusubi nekkutoon di lekk xeetu rendi yu nga xam ne ni waa Màkka dañ ko doon rendi seen xërëm yi maanaam indi gàtt ba si xërëm bi rendi ko pour jaamu ko xërëm bi moom gàtt yooyu noonu nekkutoon di ko lekk wala yaxduru lil awsaani iidan wala ixtifaalan nekkutoon di teewal xërëm yi si feet yu nga xam ne ni waa Màkka dañ ko doon faral di def di feetal yii nga xam ni mooy xëy mi ak diko ko màggal daawu ko teewee balkaana kaana min awali nachatihi naafiran nekkoon na si commencement dundam muy si jamono ndawam nekkoon na di daw naafiran mooy di daw min hadihi almahbudaati al baatila si xeeti jaamu yi nga xam ne ni waa Màkka dañ ko doon jaamu te muy xeeti jaamu yi nga xam ne ni yu neen la yu jéng la xatta lam yakun shay'an abghadu ilayhi minha ba si noonu sax amul lenn lu nga xam ne moom la gënoon a bañ comme lu nga xam ni moom la bañoon waat ci lii nga xam ne nii mooy allaata wal uzza moom lay wax ne wa xatta samay xilfi billaati wal uzza nekkutoon di bëgg a dégg sax mënutoon muñ ci dégg nit ki di waat ci li nga xam ne mooy laata al uzza si fàttali laata al uzza ay xërëm la yu nga xam ne nii waa Màkka baaxoo woon nañ ne di ko jaamu ak di ko rendil xeeti yenn xeeti rendi yi bokk na si luy wane loolu mooy gannaaw ba nga xam ne nii Abu Taalib génn ànd ak moom si benn commerce ba ndee ba yegg si labbe ba te mooy Buhayra ba mu leen tegalee ñam comme lu nga xam ni moom la ko Ibnu Hisham nettalee ba mu ko wooyee gis di ko seetantal di ko seetantal ba gis màndarga yu bari si màndarga yu yonent yi nga xam ne ni jàng na ko si téere yi bokk na ci lu ko wax mooy maa ngi lay gëñal ci laata al uzza maanaam nag ma gëñal ci laata al uzza te lii ma lay laaj nag ma ci tontu ba ko lab bi waxee loolu mu bañ kàddu yi nga xam ne moom la ko lab bi wax ci gëñ ci ki nga xam ne mooy laata al uzza ba ko waxee nag maa ngi lay gëñal si yàlla ne nag ma toon lii ma lay laaj mu doog koy nangu si li nga xam ne moom la ko doon laaj mu tontu ko si kon loolu lay wan ne moom dafa bañoon di gëñ si lii nga xam ne mooy laata ak al uzza te jamono ju jëm mu ngi nekkoon jamonoy ndaw nekkutoon ab yonent nee na wala shakka an al qadra xaatahu bil xifdi mi ne sikki sàkk amul ne dogalub yàlla bi da koo aar da ko wër si aaram si sàmm jamono ndawam avant muy nekk ab yonentam parce que yàlla dafa baaxoo ñu nga xam ne nii da leen di nar a yónni même buñ nekk ndaw da leen di sàmm ba yenn bàkkaar ak yenn jéng yi duñ ko def donte ay ndaw lañ nee na fa indama tataxarraku nawaasi u nafsi léegi-léegi sax bu ko bu bi yëngatoo si nem ko léegi-léegi ndaw day soxlawoo yenn yi nee na léegi-léegi bu xalaat bu xelam xalaate yenn yi pour mu def ko si loo xam ne nii day xaw a nuróog ak jéng sax boobaa nag loolu lay wax ne fa indama tataxarraku nawaziu nafsi listitlaayi baadi muta i dunia bu fekkee léegi-léegi day xalaat pour dund yenn saaru dund yu neex yu nga xam ne nii nit ñi dañ koy faral dund si àddina bi wa indama yarda bitti bàyyi baadi taqalidi léegi-léegi bu buggee topp lenn si ay aada ak cosaan yi kan, nga xam ne nit ñi dañoo baaxoo di ko def waaye nag xayril maamuda mu nekk aada yi nga xam ne aada yoo xam ne nii nekkul lu rafet nekkul lu ñu gërëm tatadaxalu al inaaya ar rabbaniya lil xayluula baynahu wa baynaha dogal suñu borom day dugg nag ak itteew gu nga xam ne moom la yittewoo ak sàmm gu nga xam ne moom la sàmmoo day ñëw pour protéger ko maanaam saa woo xalaatee pour def lenn loo xam ne nii mën na nekk loo xam ne da koy sikkal ab deram suñu boroom ak yittim ak sàmmam day ñëw aar ko si ba du ko def comme ni nga xam ne borom téere bi dina si joxe benn exemple buy wane loolu bokk na si misaal muy wan musta def yenn xeeti jëf yu nga xam ne nii waa jaahiliya muy afa islam dañ ko daa def mooy xadis bi nga xam ne nii borom téere bi indi na ko si téere bi nena na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yàlla mooy nettali ne maa hamamtu bi cheyin mimma kaana ahlul jahiliyati na maa hamamtu bi cheyin musuma yitte woo pour def maanaam musuma bëgg a def mimma kaana ahlul jahiliyati yacmaluuna gayra marratayni lu nga xam ne ni waa jahiliya nañ ko def musuma ko bëgg def lu dul ñaari yoon kullu daalika yaxuulu llahu bayni wa baynahu waaye nag ñaari yoon yëpp nag saa wu ma ko bëggee def rek yàlla day dox sama digganteeg loola ba duma ko far def fu ma hamamtu bihi xata akramani bi risalati yi gannaaw loolu loolu nag ma bàyyi ko nag mosuma ko yittoowaat ba yàlla teral ma def ma ab yonent maanaam waa Màkka yenn xeetu jëf yu nga xam ne nii seeni ndaw baaxoo woon nañ di def man musuma koo def musuma ko yittuwoo def lu dul ñaari yoon te ñaari yoon yëpp nag yàlla daf ma koy xañ ba duma ko far mujj def ba loolu amee nag ma mujj ko bàyyi musuma ko yittuwooti muy nett nag ñaari yooyu noonu nan la demee nee na xultu laylatan wax naa benn guddi lil gulaami alladi yaraa mayil ganam bi bi ala makka benn guddi rek wax naa xale bu nga xam ne nii moom laa doon faral ànd ak di sammu samay jur si makka parce que jang nañ si ginnaw ne yoonte bi nekkon na ab sammu masna na wa makka ñuko don fay legi nak bamuy muy nem ko amna kum don andak dina nee na guddi rek neena ko law absarta li ghanimi hatta adkhul makka boma sàmmaloon samay jur boma ma sama xar yi nga xamni man mako wara war bama duggu makka wa asmura biha ma ngonar fa ngonar bu ko la waxe moy lan ñàkk nelaw guddi tok di waxtaan di fo sar yoyu comme nuko xale ba baaxoo di def kama yasmuru ashabab comme no xale di di ngonaaree ci gàttal dal waxna ki nga xamni mom la doon faral di and ak di sammu ne ko mo xol lan sama juri ba ma duggu makka def li nga xamni mom la xale ba baaxoo def ta moy ngonar tok di fo sar yoyu ba waxe lol nak fa qala afal waa nga xamne ne la and ne ko waw dina ko def man na la samal tay jur ba nga ñewat neena fa kharajtu hatta idha kuntu inda awwali dan bi makka neena na ma genn fasiyene duggu dugg bama de ba yegg nak si keur gu nga xamne mom la laa dab si keuri màkka yi samitu asfan ma dégg misik al asf min azafa yazifu maana daraba alal awdi mooy dóor na ci gitaar gi comme saaru tëgg ak yore gitaar yu mel noonu mi ne ba ma nee bay dugg màkk rek si génn kër gu ma njëkk a dajanteeg rek ma dégg fa misik gaay di misik di foo fa qultu ma hada ma wax leen ci ñu nga xam ne ñoom laa dajanteeg lii lan la fa qaalu ursu fulaanin bi fulan ñu ne fi de cietal diw la si ben xali bu jigen benen manam lenn si goru màkk mom moy cietal fajalastu asma'u neena ma tok nak di deglu ba ma ne tok di deglu rek fa daraballahu ala udhuni fanamtu. yalla sanni samay nopp nelaw su ko defé nak ma nelaw manam bama toge pour deglu rek yàlla nattoo ma nag ma nelaw fa nee na fa ma ay qadani illa xarru shamsi yeewu ma rek lu dul ba ne ba set jot na ba jant bi génn ba dal sama kaw ma tiit jug looloo ma mujj yee su ko defee kon lu lu ma ñëw fa pour déglu mujj ma ko sax far déglu nee fa ottu ila saaxibi fa saalani ma dellu si sama àndandoo bu nga xam ne nii moom laa bàyyi woon samay jur mu may laaj fa axbartuhu ma nettali ko lu nga xam ni mo jotté xew te moy nelaw yu nga xam mom la fa fasiyene nelaw mom la fa jotté nelaw summa summa qultu laylatul ukhra misla dalika neena ma togat ay fan rek ma waxat sama ando bu nga xam mom la andagon mu ne ko elent eh, eh, won nga xoolal ma samay jur ma dugg makka ngonar fa comme nga mom la xale yi di ngonaré ba lolou amé nak momit mu d'accord ar gatel gardel ma sama jur neena na wa dakhaltu bi makka ma dug makka nak fa asabani misla awwali layla mu jotan ma comme lu nga xamni ni moo ci guddi gu njëkk ga manam ma dem ba tok pour deglu rek yalla sanni si man nelaw man nelaw yewuma lu du bane jant bi moo may loolu nag bam ma dalee ñaari yoon nag nee na summa ma xamantu bi su gannaaw loolu nag musuma yittoo waat loo xam ne ni lu ñaaw la xadis boobu day wane ne musta jaar amusta am jaar-jaar yu nga xam ne nii moom la xale di jaar ci yenn jaar-jaar yu ñaaw yi su ko defee moom la borom tiir bi indi comme dalil xadis bi nag lenn ci borom xam-xam yi wéral nañ ko comme lu mel ne tabari indi na téere indi na xadis bi xaatim wéral na ko comme nu nga xamee lenn ci borom xam-xam yi nee nañ xadis bi wérit comme lu mel ne ibnu kafir warawal buxaari imam buxaari génn si téeréem bi bu waxee buxaari rek mooy borom saxiix buxaari mooy ibrahim ah, wala boog muhammad al buxaari na génn benn xadis bu nga xam ne moo ngi ko jëlee si jaabir bun abdullah qaala Lama til Ka'bah, dhahaba nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Banga ba nga xamé ni wa Makkah ñoo ngi tabaxat Ka'ba gi yonti yalla muhammad sallallahu Alaihi Wasallam bokko na ci ñu nga xamné dañ doon toxal ay doj bu tabax Ka'ba gi loolu lay wax ne dhahaba nabi sallallahu Alaihi Wasallam. wa abbas al-hijara yalla muhammad ak baye taxam bi nga xamné moy abbas ibnu abdul mutalib bokko na ci ñu nga xamné ni ñoo doon toxal ay doj comme niñ ko si bind buñ jógee nee na fa qaala abbas lin nabi sallallahu alayhi wa na bàyyi taxam bii nga xam ne mooy abbas mu wax ko ne ko ijal izaaraka ala raqbatika jëlal sa izaar bi izaar buñ ko xam mooy làmbaay bu nga xam ne dañ ko doon faral di làmbaay arab dafa baaxoo woon di ak colam da ngay saar wodd bu nga xam ne nii mooy wormaal say cër yi nga xam say awra yi nga xam ne ñoo faree suuf ak genn lay bi nga xamni ne ni mooy nekk ci kaw lay gi nekk ci kaw ñuko ñuko don tuddé arida lu nekk suuf ñuko tuddé izar moy moy don comme saaru ser wala saaru tuba gi yoy ba lol amé nak abbas nako ko ijal ala raqbatika jëlal sa ser bi nga tek ko sa doxo gi pour mu man la protéger si doj yi yaqika min al Suka su ko defé dina mën protéger xéer yi ngay tek sa gi mi ba mu ko defee rek nee na fa xarra ilal ardi mu daanu xam si suuf si si sansi wa tamahat aynaahu ila samaa'i mu buqi ay bëtam di xool kow asamaan summa afaaqa topp mu nag mu ximmaliku ab diir fa qaala izaari izaari sama tubay wala boog sama taraxlaay jox leen ma sama taraxlaay nee fa shudda alayhi izaarahu ñu delloo ko wala bok ñu fatal ko ak lambayam wa fi riwaya fama ru'iyat lo awra ba'da dhalika gannaaw lolu kenn musta gis awram gannaaw xey xoy bi nga xamne ni mo xewon ci tabakh kaaba gi lolu day wone ne yalla sammu nako même sax yi nga xamne ni wa difuñ ko won lu ay mom yalla sammu nako ci si xamne ni donte jamono ndaw wa kaana annabi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ku nga xam ne nii taasu fi qawmihi bi xilaalin adba nekkoon na di ràññoo si jikko yu nooy jikko yu rafet wa axlaaqin faadila ak ay jikko yu kowe yu gën ay jikko yu ngëneel ci gàttal man nga ne ñaari baati so réewul xilaal buñ ko waxee mooy jamu xalla xalla buñ ko waxee mooy la mooy jikko moy jikko yu rafet wa shama'il karima shamail kadalik moy jikko yu rafet rek wa shama'il karima ak ay jikko yu rafet fa kana afdal qawmi marwa nekkon na di bok ci nga xamni ño gën ci ay nitam ci walu am jom dafa amun muru asik bopam wa ahsanuhum khulqan kadalika ku len gëna rafet bind ak jikko wa ahsanu khalqan wa khulqan wa azuhum jiwaaran comme ni nga xamee ne nii moo leen gën a tedd si dëkkandoo maanaam nekkutoon ku nga xam ne day lor ay dëkkandoo wa azamu xilman comme ni nga xam ne moo leen gën a màgg si lewet ku nga xam ne day lor ñu nga xam ne ñoom lay faral di nekk ak wa asdaquhum xadiisan moo leen gën a dëggoon si waxtaan maanaam buy waxtaan même buy waxtaanu kaf sax luy wax dëgg rek lay doon wa alyanuhum arika comme nu nga xamee nii nekkoon na moo leen gën a nooy si ay jikko arika buñ ko waxee mooy alxurqu ba tey arab waxee fulaanun layyinul arika mooy koo xam ne nii salisul xulqi munqaadun nit ku woyof koo xam ne nii nekkut ku rëy loolu lay wax ne wa alyanuhum arika nekkoon na ku leen gën a nooy si ay jikko nekkutun kuy réy réylu wa afuhum nafsan wa akramu khairan nekkon nak nga xamne mo len gëna fegu ci bopam nekku don di dund kom nuko xalé yi di dundé ci jamono ndaw wa akramu khairan nga xamne mo len gëna tedd ci yiwu ci mbax wa barruhum amalan kom nga xamne ni mo len gënon bax ci ay jëf wa awfahum adan mu nekkon ko nga xamne kadalik mo len gëna matal matalé kolere bu la joxé kolere dula massa war comme nu nga xamee ne nii wa amanuhum amaana ku leen gën a wóor si ak kóolute loolu sax yóbbee woon na ko ba waa Màkka ñoom ñoo ko tuddee woon al amin mooy ku wóor ki ku nga xam ne nii du wor koo xam ne nii loo séq ak moom rek du la sa wor te loo ko dig wala boog lum la dig du ko fóose xataa samaahu xataa samaahu qawmuhu al amin waa Màkka ñoom ñoo ko tuddee woon al amin te booba sax nekkutoon ab yonent nee na lamma jamaa fihi lima jamaa fihi min al axwaal alsaaliha wal xisaal almardiya ngir lu mu dajaloo si moom si ay axwaal alsaaliha mooy ay anam yiw yu baax ak ay jikko yu yu ñu gërëm loolu mooy yóbbi woon waa Màkka ñu tuddee ko al amin wa kaana kama qaalat ummul mu'minin Khadija radiyallahu anha si tënk daal nee na yonent yàlla Muhammad daal boo ko bëggee xam da ngay xool rek comme ni nga xam ne ni moom la ko ummul mu'minin Khadija melalee comme nu Seydina na nu mu ko melalee woon mooy gannaaw ba nga xamee nekkoon na di fa nekk fa la nga xam ne mooy xaaru Hira nekk fa ab diir ba yàlla def ko bu yonent fekk fa ne ko ba histoire ba ak mu demee ba mu demee ba ñibbi nag mu wax ne man de tiit naa sama bopp mu wax loolu ki nga xam ne ni mooy soxna Khadija soxna Khadija tontu ko lii nee na moom nekkoon na ku nga xam ne ni yaxmalul kalla day dimbale ku nga xam ne ni dafa tëlee al kalla buñ ko waxee mooy koo xam ne al aajis sa wu don gis ko xamne dafa tele da ko don jappale si ay bagasam, mooy yaxmalul kan la da ko don yen ay bagasam wa yaksibu alma adum comme nga xamne da don fagul nga xamne dafa ñak ko xamne amut da ko don jappale comme nga xamne ni nekkon na yuqri dayfa di ganale ku nga xamne ni gan la manam saa wu amee gan da ka da teral wa yuinu ala nawa'ibil haqqi comme nu nga xamee nekkoon ne dimbale si xew-xew yu nga xam ne ne dana xew si dund gi si anamu yu xaw a métti yi muy musiba yi xew léeg-léeg si nit ñi ku si musiba daa wàcc si yow dadaa baaxoo di la dimbale kon xeeti jikko yi nga xam ne moom mooy fas yéene moo moo nekkoon ci moom si tënk nit ki jikko yi di nekk si moom pare yàlla di ko seetaan comme nu nga xam noonu la ko soxna Xadija waxee su ko defee ab tënk ci lii nga xam ne mooy bind bi nga xam ne borom téere moo ngi koy tuddee as-siira al ijmaliya qabla nubuwa mooy jaar-jaar yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ab yonent borom day wane fii rek ne jamono ju muy nekk ndaw yëpp yàlla da koo aar ci lu nga xam ne nii xale màkka baaxoo nañ di ko def mooy jamono ndaw rek lu nit ki baaxoo di ko def moom yàlla aar na ko ci loolu nekkutoon ku nga xam ne nii da doon jaamu ay xërëm avant muy nekk ab yonent nekkutoon di lekk sax même lu nga xam ne dañ koy rendil xërëm yi nekkutoon di si lekk comme lu nga xamee ne nii nekkutoon di naan sàngara ci jamonoog ndawam comme lu nga xamee ne ni borom téere bi nettali na musta yitte woo def lu nga xam ne ni waa Màkka daa nañ ko def lu dul ñaari yoon te ñaari yoon yëpp yàlla aar na ko ba mujj koo def comme nu nga xamee ne borom téere bi nettali na yàlla sàmm na ko si mu nëbbu awraam donte lu muy nekk jamono ndaw nga xam ne nii mën nga ne nekkutoon loo xam ne nii waa màkk aayal na ko waaye moom topp leen ci loolu parce que it da doon dund waa màkk si ala basira maanaam si gis-gis bu rafet lu mu gis ne nit ñaa ngi koy def mu nekk lu rafet décida ànd ak moom comme nu nga xam ne nettali nañ ko si tabax bu nga xam ne ni moom lañ tabaxaat kaaba gi ak xarbul fijaar bu nga xam ne nii bokkoon na sa ànd seeg ay bàyyi taxam comme nu nga xamee ne nii borom téere bi jot na koo nettali lenn si ay jikko yu rafet yu nga xam ne nii yonent yàlla Muhammad làmboo woon na ko si jamono ndawam doonte nga xam sax nekkutoon ab yonent moo tax léeg-léeg da ngay faral dégg yenn wax ju nga xam ne nii wax ju yàqu la muy sabiyan sabiyan walaw kaana nabiyan maanaam xale moom xale la rek donte ab yonentu la sax faaw mu am ay jaar-jaar yu ñaaw déedéet yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen yonent yëpp yàlla dalee na aar même sax jamono ju nga xam ne nekkutoon nekkuñ ay yonent su ko defee lii mooy tënkëb bindab juróom-ñeenteel bi borom téere bi tëjee ko bunt bi nga xam ni moom la tijji woon tuddee ko an nasabu wal mawlidu wal nasha te mooy askanu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak judduwaayam ak lenn si ay jaar-jaaram afa muy nekk ab yonent loolu ñu si déggee rek mooy leen buñ fi dir si waateeg jàmm dañuy dugg si beneen bunt bu nga xam ne nii dafay fas yéene jàngale lii nga xam ne mooy gannaaw ba nga xamee am na ñeen fukki at su ko defee gannaaw ba nga xamee nekk na ab yonent وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين